ci jabar la wax moo man may wax ay caresser man après aussitôt voilà ñu dalal ko j'ai changé le mot pour ne pas heurter voilà la sensibilité des uns et des autres euh. moo tax ma dans l'alcool ñu dalal ko dalal helam il faut may wax ni fokk ñu permettre ces femmes encore une fois ñu jege Ousmane Sonko c'est pas trop demandé. Hmm. Mhm. alors euh, dañuy daal di wéy ni ba wax exactement si euh, c'est la date du 18 euh, euh, bi nga xam ni itam waa FRAPP peut-être pour exiger la libération des détenus politiques ak li nga xam ne moo Ousmane Sonko ak consort ñoom itam ñi amal seen li nga xam ne mooy plan d'action ne si vitam ni daal li nga xam ne libérer ces détenus politiques Guy Marius Sagna ko xam la et que plus de 1000 jamono ji ñi ngi si nga xam ne moo si détention yi manikon ni Arfan lu ñu mel na ko ko di jàngatee de plus en plus des arrestations on a plus finir euh, li nga xam que moo euh, frappe on euh, na daal di war a mën a sol li nga xam que moo di bras à rouge, peut-être pour demander leur leur libération jàpp ko le 18 incha allah mais fi mu toll nii nag préfet bi li déglu mais quand même instant bii nii li ci am yaakaar bëriwul que ni war nañ daal di war autoriser boobu de marche. alors man damay commencer d'abord ci jàpp di parce que jàpp bi man dama bokk ci sénégalais yi jàpp ni que. Euh, Je bi peut-être euh, dafa bëri. Hmm. dafa te euh, xam ci anam yan anam la ñuy nit parce que am na ñoo ne dañ lay jàpp pare ñun notifier la li nga def. Hmm. mais man dama jàpp ni au moins da koy da koy da koy koy mu wala bu fekkee da koy jàpp boo demee ba ci moom nga ne ko lii ak ak ba la hmm. mais dañuy la jaay la sa kër man waxuma ni jàpp daggan na ci koo xamante ne def na bu defee jaadu na nga jàpp ko parce que yoon tamit on est dans un pays de droit yoon mm. loolu la wax mm. maintenant bu fekkee deful il faut tamit boo demee ba xam ni ni ko deful il faut nga relaxer ko mm. nga bàyyi ko mu ñibbi këram mais jàpp yu ñuy jàpp ni nit ñi dañ lay jàpp bu ñu la jàppee jàppal ni sa waajur mën nañu jàpp ni que yow dañ lay defeere ci pays bu demee ba mel noonu nit amul sa doute ni bo xamantene ne ni que bu demee dina ñibbi si waati hmm. mais yow buñ na jappé taj sa kër da ngay xam ni carrément ni que dañ lay defeere commencer ne say say say say mbokk euh, defaral ma valise wala préparer ma valise parce que man damay damay jall tout ça euh, ñu japp ni que c'est peut être prématuré japp bi dafa dafa dafa dafa dafa facile. Hmm. c'est c'est tellement facile. Hmm. Euh, buñ ko mënee comment adresse euh, wañi nañ ko wañi sëñ Fallou ñi ñuy japp ñi yëpp ci jeunesse Sénégal lañ bok mm. imagine japp bu bari boobu bi boo xam te nga nek di japp jeunesse bi ak après ñan ñoy liggéey pour la le développement du mm. pays ñan ñoy liggéey il faut nga bàyyi ci le pays mënul développer sans sans sans sans sans sa jeunesse. amul d'ailleurs euh, raison pour laquelle ngay gis ay pays nek ci bitim rew di soxla ay main d'œuvre di ñëw dina nit ñi boo leen laajee visa suñu ambassade ñu may leen parce que ñun foofu la population est vieillissante. Mm. mais ñun sens bu ñu am yàlla defal ñu ñun Afrique fii nii dañoo am jeunesse maintenant il faut ñu am politique boo xamante ne dañuy tënni dañuy dañuy dañuy jàpp jeunesse boobu pour mu mu bañ a dem fenn mais les politiques on voit en Afrique nguur gi au lieu euh, euh, euh, ñu xool nan naka la ñuy mën ay yan politique la ñu mën a lal pour nous retenir jeunes fille mais nous c'est comme si nous c'est-à-dire que fallait nous la parce que quand tu vois l'immigration ne yi ñu ngi ci ci ci mm. mais in euh, da ngay gis ay nit ñoo euh, comment ay autorité euh, une fois la wax ben la wax paré nañ ci wax ji maintenant bu ay nit ñi foofu la ñu mën a am mënee à nekk en lettre ci des questions de départ yu ñuy ne ay mërs la ça concerne deux personnes sénégalaises deux citoyens sénégalais mm. c'est donc affaire affaire privée la mm. ñoom ñoo ko waxee noonu début bi début bi bu affaire bi claté bu ñu demee ci plateau yi lan la ñuy wax affaire privée la ñun duñ ci wax état nekkul ci ginnaaw mais affaire bi dafa dem ba nekk public léegi ñoom euh, euh, comment dire euh, ay ministres yooyu pour ñu kontaan bu ñu nekkee ci plateau tant que waxuñu ci Ousmane Sonko duñu kontaan. Hmm. je parle allusion à au ministre de la jeunesse Pape Malik Ndour mom il aime tellement parler ci question bobu tout ça nga gis euh on veut te faire croire ni que euh, euh, japp bu ñu nekk di japp les jeunes là euh, parce que ñom ñoo def mais le constat général que tous les journalistes wala tout ñoo xamante dañuy gëstu ci japp sénégalais ba boo demee di interroger wala di def ay investigation au niveau des des des de ces lieux carcérales mais da ngay japp ni da ngay gis ni que soit Pastef la bokk wala farwel à APR hmm. mais bu féké da nga bok ci mouvance présidentielle bi do nek kasso dañ lay relaxer wala sa kenn du la jàpp parce que c'est ce qui c'est le fait hein, le fait bo xamanté mom mo nek di xew fi Sénégal mais tout ça mais, au nom de quoi Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais attends, c'est du fallo. Nena le fi. Donc, nous euh, avons euh, euh, saccage de Mais, mais attends. Nyata saccage nyo am fi. Nyata saccage nyo am fi. Depuis mars 2021, d'abord, le, le siège de Pastef à Yoff a été saccagé. Ben, nous avons dit que voilà lo xamantene ne euh, kenn ñamewu ko wax loolu yëpp. est France euh, France da daal di xëdëm. leneen tamit am na fii ci loo xamante ne dañ lay ne. non waxuma la ci régime bi lañ bokk. mais gis nañu fii ay ñoo xamante ne ay jeune ndaw yoo xamante ne waa mouvance présidentielle bi la bokk Macky Sall bu mu euh, nekk moom du nekk candidat dañoo fakk dem jusqu'au palais di fël ay gendarme di jàll ci lo xamantene occupation à la voie publique non autorisée parce que kenn autorisé wu ko ñu xalamal len taxawu leen ba ñu gis président lolu kenn sañu ko wax ci Ousmane Sonko buy def caravane wala ko tour wala caravane de la paix kenn sañu ko def dañ lay japp wala ñu dóor la ay grenade lacrymogène c'est ça les faits yu am Sénégal kenn sañu ko def bu fekkee Khalifa Khalifa Sall fay def euh, caravane ñu stopper caravane bi tas ko wala ay benn Mimi Touré muy dem Casamance ñu empêché la wala keneen keneen Déthié Fall ñu barricadé sa PRP sa sa siège bi mënoo fa dem sax liggéey en tant que candidat aux élections 2024 loolu au moment où que les jeunes de APR ñu ngi dem ci siège APR di ko saccager di xeex bay dóorante ay euh, bomb lacry comment dirais euh, euh, comment dirais pompe à gaz lu xewoon ci diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr ñan ñoo kan ñoo jàpp jeunes yooyu. Hmm. pourtant ils ont saccagé le siège de APR. xeex nañu fa xeex bu métti ñu reprendre ko dans tous les journaux est-ce que am na enquête mais amul enquête amul enquête tout ça c'est des jeunes de quoi de APR mais c'est ça les faits xam nga ñi du ñuy dañ lay andi ay analyse te ko ci table bi xanaa nga nang wala nga bañ lolu mo amone maintenant imaginez lolu am ci benen structure bu bokul ak APR. ñu jàpp leen ñu jàpp les jeunes là moo tax ñu ne la jàpp bi dafa bëri trop te ñu ñuy jàpp yëpp ay des jeunes sénégalais ñun yow Sénégal léegi presque boo demee famille yëpp a nekk ci kaso ah famille yëpp a nekk ci kaso bi bul xam ñaata nit ñaata famille ñoo xamante ne dañuy am seen mbokk yi nekk ci kaso ay seen doom yoo xamante ne ñu ngi tey ci kas si ci kaso yi. Hmm. ñu leen di yóbbu ay añ wala ñu leen di yóbbu ay ay ay ay ay reer. xam tout ça Sénégal la pourtant lu mel on xewoon en 2012 mais Ablaye wat jàpp bi melu que cest que moo tax la koy def nit. Hmm. da am ce qu'on fait le sens du pardon da ngay da parce que da nga xam ni yow li c'est pas éternel diñ fi mës a jógee. te yow tamit sénégalais yi ngay samal parce que ñom dafa melni ñom ñoom ñoo la employé parce que sen xaalis lañ lay fayé mais mu yow bo nekk fofu melni ni di japp sénégalais yi di len tong-tongal wala di len dugal ci kasso bi Abdoulaye amona opportunité bo mais il l'a pas fait parce que c'est il est élégance c'est de l'élégance hmm. c'est de l'élégance Abdoulaye ak loo ko mënta waxal il a compris la jeunesse sénégalaise dafa bok ci les présidents de la république yo xamantene dañu dañoo comprendre société sénégalaise lu mu bindoo tant que xamoo wala tant que xam nga ko wala ña ne léegi yow da ngay fayantu wala da ngay da ngay def lu la neex da ngay japp ñëpp duggal len ci kasso bi parce que Sénégal mo mel nonu lolu bo bëggee mu dañ da ngay commencer l'éducation dès le primaire dès le bas âge. Hmm. commencer yar xale yi fofu mais tant que commencé woon loolu xale yi ni lay continuer xale ngay gis ci mbedd bi ñuy sànni xeer mais ay xale am 10 ans 12 ans ay kii yooyu xale yi ngay gis ni ci réseaux sociaux yi ñuy publier seen le motifs ay mbuur mais ay xale yi am 10 ans 15 ans yooyu il wala 18 ans ci la mat des enfants qui ne peuvent même pas payer leur scolarité à l'école se retrouvent dans des, dans des suites de luxe, des chambres de luxe ou bien des appartements de luxe à Hambourg, tout ça, la, la, la, la responsabilité aux parents et à l'État du Sénégal. Pourquoi l'État du Sénégal, ce qu'il fait pour euh, le jeu de XBet, même si Belégui a dit côté Bobo, moi, madame, si vous avez joué, a avez 18 ans, voilà, vous avez la carte d'identité, on ne peut pas le faire. Vous faites que vacances à Hambourg on ne peut pas contrôler les enfants qui déversent dans les places de Mbour police gendarmerie am quantité suffisante Bon, xam te ne dañuy ci les places là de Mbour c'est des places sensibles ciblées par la zone rouge ni que dafa am nakay sudul noonu yu fay xewee pourquoi la gendarmerie et la police mënuñu débarquer côté du di jël par ben ben de d'identité xale yi ñu interroger la foo jogué Dakar lan mo la fi indi ay tout ça pourquoi ils peuvent pas pourtant ils peuvent le faire mais on le fait pas mais ñom si il s'agit de lenen ak lenen lu faré ak Sonko wala lenen ak euh, kili ñom dañuy japp voilà. alors nous euh, ñu daal euh, exactement par rapport à la journée de demain inshallah allah ma ni ko un peu partout fils du Sénégal ak fils dakar exactement est-ce que cette manifestation sera autorisée 30 secondes. bon pourquoi pas le préfet m'a na autoriser euh, euh, commander, euh, le rassemblement tu sais pourquoi c'est un droit la constitution sénégalaise la boc. normalement il devait même pas chercher une autorisation hmm. il devait aviser l'autorité publique Il on aviser l'administration maintenant au Sénégal on a tendance à laisser ce qui est écrit dans la constitution hmm ñu aller selon ñun suñu dayo c'est-à-dire que euh, euh, l'autorité moy définir lan que nous ko nexé mota ngay gis ay nit yi bëgg euh, def rassemblement ñi dem di outu ay autorisation normalement avisé c'est aviser l'autorité momu encadrer encadré la jox la heure bi ngay paré momu encadrer maintenant si suba encore ñu gantal ko au cas où euh, préfet bi euh, gantal euh, ki bobu manifestation ou rassemblement bi. Hmm. encore ça sera encore une pour une énième fois. parce que gis nañu fi bobu légui ken kenn sañ-sañ mars. fi ci ci Sénégal fi mars la la wax waxuma la manifestation mars ça mars ken munu ko am sañ-sañ fi ci ci ci réew mi ñu bokk ci réew constitution muy jox la yoon non mais non du information la seigne euh, Fallou munoo toute une année munoo toute une année di gis ay information yu kenn gisul te ba pare information di ñu dama ne ba pare information yoy yi nga gis hmm. musul ñew mais tu continue de mais entrave à la circulation mais les quand les les membres de euh, les amadouba tout récemment ils ont ils ont ils ont rassemblé des gens à Kafri wala à Pourquoi ak feneen fu ñuy ay ndaram la pourquoi mon préfet bi do interdire lolo? pourquoi do interdire lolo? maintenant si vous que société civile mo bëgg marche wala euh, euh, frappe euh, France gaz wala yewi Askan Wi mu interdire ko maintenant vous que ñanan mo mu bàyyi mu jall au nom de quoi te ñom ñëpp bokk ci tout ça, tu continues de oui, l'État, euh, comment dire, euh, force restera à la loi, oui, euh, on est dans un état de droit. L'état de droit, c'est quoi Maintenant, s'il y a un état de droit et aussi il y a la démocratie, il faut commencer par le cultiver, le mettre en pratique, toi, l'autorité, en commençant d'abord par toi. Maintenant, si toi tu appelles un état de droit, on est en état de droit, au Sénégal c'est un état de droit, oui, bien sûr, c'est un état de droit. Hmm. Maintenant, état de droit aussi, waxul ni da ngay nogot leen c'est pas ça un état de droit on vit dans la constitution la constitution moo nous on est en démocratie c'est un état démocratique hmm. c'est pas un royaume Sénégal c'est pas un royaume c'est pas un royaume c'est un pays républicain c'est une république démocratique maintenant si c'est une république démocratique il faut euh, nga bàyyi xel nit il faut nga ji bàyyi nit ñi seen ak yi sen yelleef ñu def ko c'est pas trop demandé il faut que nga baye Sénégalais ñu épanouir nga baye xatal len ci ben ñu xat xat xat tellement restreindre leur droit ba sénégalais yi euh, euh, jappé ni que peut-être ay étrangers la chez eux ngay gis jeune yi di fak di jël gaal yi wala di jël yoon ay Nicaragua xaw ma lu ken xamul tout ça bo len jappé ba ñu xat tëj ci ben bërëb mais ils vont se ils vont day am sentiment de frustration lolu moy créer jékki-jékki euh, euh, euh, le la goutte de trop dans dans dans le vase. Hmm. lolu moo koy créer. enfin mais jamono ji ñu naan ay terrorisme ak ay forces occultes ak yéen si ay dina xamné ko ku ma ay façon donc est-ce que japp na ni autorisé bobu de manifester.